Cap Skirring bokk ci département bu Oussouye digganteem ak Ziguinchor war a tolloog juróom-ñaar fukki kilomètre tey nag ñii di population bi ñoo yeewu amal ab manifester pour réclamer li nga xamante ni moom mooy ndox ci noonu lañ attaqué li nga xamante ni mooy brigade de la gendarmerie ba amal fa ay blessé ci ku mel ni commandant bi ak ñenn ci ay nitam ci loolu ba tey ñi nga xamante ni ñooy population bi ci seen maire taal di taal li nga xamante ni mooy zone touristique bi ginnaaw loolu ñi nga xamante ni ñooy légion d'intervention bi daal di woote renfort ci jàmmaarlu bu metti seen diggante ak ñi nga xamante ni ñooy waaye takk der yi am na ci kenn ci ñu waaye manifeste yi koo xamante ni xibaar nañ ñi daal dinañ ko blessé par balle ba jamono jii ñuy àddoog yéen mu ngi ci hôpitalu Ziguinchor tiire seen kaw gaañ leen kenn ki si bët lañ ko gaañ yeneen ni yóbbu nañ leen police kat bal yaay ni ñun ñëwuñu pour violence ñëwuñu pour dañu dox pour ñaxtu affaire ñun affaire ndox bi tey Kassim dafa tollu si daan bi amul ndox te ñun da il est temps ñu am ndox coronavirus mënu loo ko waxee te amuloo ndox yaa ngi dëgg bal yaa dañuy jóg ñu ne dañuy mars le maire ak sous-préfet ñoom ñoo taxaw ne marché bi du am parce que lan xam nañu lu ñuy wax arrangé wu leen ñun nag dëkk bi jeex na confinement bi jeex na dootuñu soloti bi nga xamante ni coow loolu am na ki nga xamante ni mooy sous-préfet bi daal di daal na xam ne ni ubbi nañ ci ab l'enquête te yoon dina def liggéeyam ba képp koo xamante ni bokk nga ci jëfi ñaaw yooyu yoon dina teg sa loxo teg ci yow daan yi nga xamante ni moom moo war